asalaamaaleykum mbokk yi tey la ajuma ñaar fukki fan ak ñaar ci weeru gàmmu ci atum junni ak ñeenti téeméer ak ñeent fukk ak ñett ci gàddaay yonente bi salallahu alayhi wa sallam dëppoo ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru octobre ci atum ñaari junni ak nit ak benn ñaar fukki fan ak ñaar bokkul ci limu fàtti lim bu rafet la kon tey ci ajuma ji rafet na ci lépp li ñu ci gën a taamu mooy ko ca daloo ñaanu bis bi yow yàlla yàlla nag ma leeralal sama dënn yàlla nag ma jàppandalal samay mbir rabbi israh li sadri wa yassir li amri xadiisu bis bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ku dem ci ab gisaanekat laaj ko am mbir deefu ko nangul ak julli diirub ñeent fukki guddi xadis bi muslim moo ko génne qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam man ataa arraafan fa sa'alahu an say lam tuqbal lahu salaatun arbaina layla axrajahu muslim waxtu julli yi suba waxtam dana tàbbi juróomi waxtu wu tegal ñeent fukki simili ak juróom benn tisbaar benn waxtu wu tegal fukki simili ak juróom ñaar yu toftal fanweeri saa tàkkusaan ñeenti waxtu wu tegal fukki simili ak juróom ñaar yu toftal fanweeri saa timis juróom benn waxtu wu tegal ñeent fukki simili ak ñaar gee ñaari waxtu juróom fukki simili ak ñett loolu mooy waxtu julli yi ci Tuuba ak li ko wër